asalaamaaleykum xanaa di sant yàlla rek euh, Sénégal moom vraiment participation si mondial bi moom nekk na loo xam ne lu rëy a la parce que dana tax ñu gën a xam turu Sénégal partout dans le monde participation bu am solo la si si si économie gu dëkk bi ensuite si euh, maanaam xam bi nga xam Sénégal à travers le monde. mais ñaari doomu ndar waaw parce que Saar Xaarim Ndiaye si la bokk ensuite euh, kii tamit si la bokk Ismaïla Sarr tamit si la bokk. ñu nekk ay doomu ndar yi nga xam ne ñoom suñu mbégte te ñoom seen ndam mooy suñu ndam ñun waa ndar rawatina Xaadim Njaay bi nga xam ni waaw ñun daanaka ñoo ko ñoo ñoo ñoo ko defar ñun waa Maison Blanche ñoo ko defar ba mu génn dem Linguère euh, dem équipe nationale vraiment loolu dafa nekk fierté bu baax a baax si si képp koo xam ne doomu ndar nga euh, te ñu koy ñaanal yàlla defal ko ndam lu rëy rëy rëy allah mu indi ko fii. bon Aliou Cissé man nag euh, classement man mënu ma si xam lu bëri parce que man joueurs yu bees yi xaw ma leen quoi. man joueurs yu bees xaw ma leen man ay ay ay Omar Daaf yu yàgg ya laa xam ak ay Aliou Cissé ay yooyu laa xamoon mais yii nii moom xaw ma leen bu baax quoi mais xam naa dana baax parce que Aliou Cissé aussi gaynde la te euh, fit lay demee te loolu moom maanaam loolu lu baax la quoi. waaw pronostic bi pronostic bi Sénégal Sénégal yàlla la Sénégal gagné 2-0 waaw 2-0 yàlla na Sénégal dóor 2-0 dugal premier mi benn deuxième mi benn muy 2-0 yu yu yu neex waaw kii dugal lu mu tudd euh, Ismaïla Sarr dugal Euh, booy bi mooy booy bu aay bi rek mu tudd Sadio Mané dugal benn muy deux waaw waa kay jaajëf. waaw ah, participation coupe du monde bi de ni ma ko gisee moom macha allah waa mais tamit euh, ñun nag ñun jeunesse su Sénégal ñu ngi fas yéene ñaan tàllalaat loxo yi xam nga di encouragé di encouragé waat li nga xam ne mooy suñu équipe nationale bi nga xam ne moo fi fas yéene jógee dem ba Russie xam fas yéene jongante foofu mais la mu fay jongante tamit. yalla suñu borom rek lañuy sakku diko ñaanat yalla suñu borom may ñu ndam li nga xamne mom lañ fay wuti mu ñew ak jamm képp ku fa dem tamit yalla suñu borom tegg la si yoonu jàmm ak salam nga ñibbisiwaat wat wa Sénégal senegal soobi mom inshallah rabbi len rek mo ñu ci mëna a muy bëgg-bëgg ak gëm-gëm yaakar naa ni ji loolu buñ ko défé rek wat xolé tamit yaakar na loolu war nañu sey mëna a dal ah mais dëgg la xeyna ñom ñaan ñaar ñëpp gardien lañu mais nak amana nak ñun suñu gis-gis mom man sama gis-gis ga lay wax dama na man sama buma sañon man ñu jël Khadim Ndiaye ñu tegal ñu ko suñu ko parce que moo ñu gën a wan li nga xam ne moo gën a dal suñu xel waaw classement yi moom wax dëgg fa neex yàlla moom loo xam ne xamaguñ ko mais suba incha allah tamit lañu li mu classé yàlla na yàlla de suñu borom def mu fekk mu doon lu fii de xanaa parce que mooy ko ñu Africa waaw naa ni moom Ismaïla Sarr daal leen fi gën a xam daal ak Khadim Ndiaye waaw ñooñu moom wax dëgg yàlla moom ñoom ñooy sunu kii yoo xam te ne daal man gaa man man Ismaïla Sarr laay laay laay supporté moom sérieusement moom Ismaïla Sarr laay supporté mais moom damay ñaan yàlla bii bii premier bii bi jógee si tànkam waaw loolu daal laa koy ñaanal daal pour premier bii bi daal jógee si tànk Ismaïla Sarr waaw mu doon loo xamante ni daal ndamu ndara lay doon a li ma koy conseillé mooy lu góorgóorlu rek waaw parce que xam moom football moom noonu la rek tey rek bu tey rek mën na am lu mu bëgg daal classement bi waaw nañ gën defaraat rek waaw classement bi moom nañ gën defaraat rek parce que moom xam nga gars yi moom ku nekk ak sa li ngay critiqué daal ku nekk naan da ngay def nii kii naan da def nii mais moom moom nga xam ne moom euh, euh, kii sax ki nga xam ne mooy entraîneur bi moom mooy xool classement bi nga xam ne moo ko doy mu daal di koy def mu gérer joueur yu baax mu teg te tegal nu suñu bi nag ak suñu gardien bi ah li ma gis daal moom deux heures daal laa gis waaw deux heures moom daal laa gis <laughs> waaye merci waay. <laughs> waaw Sénégal de participation bi ñu ngi koy rafetlu. di encourager joueurs yi di leen ñaanal pour ñu gën a kawe seen joor même bu nu mënul def 2002 li nga xam ni la seen ay mag defoon au moins ñu génn jéem a dem ba jéem a génn seen poule daal loolu nañ leen di souhaiter di leen ñaanal surtout Khadim Ndiaye mi nga xam ni ñi ngi koy félicité ci koñ bi la jóge fii la defee carrière am yëpp presque mën naa wax tamit bokk naa ci man man man bokk naa ci ñi nga xam ni sama gannaaw la ne woon mais ñi ngi koy encourager fii la defee ay parcours am ak yépp fi la football senior kadé ba dem jaama gën xam nga mais ñu ngi koy souhaiter surtout mom di ka ñaanal lu gëna ko njortu njortu lu gëna kawé kawe njortam pour mu mëna a génn xam nga ba persévérer xam nga di ñaanal équipe nationale tamit équipe nationale ñu ngi koy ñaanal bu baax ba bu mënul dem au moins quart de finale mu génn poulam lool daal nañ leen di souhaiter ñoom ñëpp listu Aliou Cissé bi ah ñu ngi koy rafetlu rek xam nga moom jël jël jël jël sélectionné lu mat 23 jours dafa xaw jafe boo jëlee foo nga am ñoo xam ni foo nga bàyyi leen xam nga mais mënuñu si dara ñu ngi koy rafetlu di ko gërëm daal di leen ñaanal au moins ñu génn daal poule bi nu ne moom loolu nañ leen di te daal. conseil bi nu leen di conseil bi bi ma leen mën a jox bu nu ñëwee daal nanu jéem a xaar xam nga fubal seen ay propre valeur xam nga ba a wane ñëw. di wane équipe bi moo gën a moo leen gën a baax affaire yooyu xam nga bu ñu ñëwee def si fula def si fayda xam nga gëm seen bopp ni seen mag yi deux mille 2002 defoon xam nga coupe du monde moom xam nga da dafa metti na dafa metti trop parce que lu presque lu mat ay 52 équipe Afrique ñu ñu compétition bii daw ba cinq équipes génn si xam nga ba pare lu mat quinze millions habitants xam nga. ñu jël si 23 jours lool dafa metti ñu ngi leen di ñaanal daal ñu génn premier tour moom bu ñu génnee moom après ñu doog a xool continuité bi daal nan lay demee. mat ci suwe bi maa ngi ñaan ñu dóor 2-0 lool laa gis quoi <laughs> waaw ok merci. waaw di ñaanal Sénégal rek Sénégal am ndam ndax ndamu Sénégal ndamu ñëpp la képp kuy Sénégal ndamam la xam nga te ñu ngi ci ginnaaw Lions yëpp nag rawatina Khadim Ndiaye mu dëkk Ndar. ak Ismaïla Sarr ñu ngi leen di gën a encouragé ndax ñun Saint-Louis ñun dëkk équipe nationale nu faral waaye ñun tam ñooñu du leen di beral loxo tamit ndaxte doomu ndar nanu waaw nu am jom fulla ak fayda du xàccandoo di dóorandoo rek loolu kase la du leneen. Euh, salaamaaleykum bienvenue chez Ismaïla Sarr comme ni ko xamee ñu ngi nii toog di préparer coupe du monde bi vous êtes bien chez Ismaïla Sarr man la Kaw Niass di xaritam dëkk ci koñ bi aussi ñu màggandoo depuis bon ñu leen di dalal jàmm di leen euh, remercier aussi si ñëw bi ngeen fi ñëw waa saint TV. waaw contente la parce que boo xoolee bi mooy suñu deuxième participation donc c'est pas donné à n'importe qui aussi nga nga nga nga fekkee ko moo tax ñu ngi koy préparer di ko waajal ay waaj rëy aussi parce que. boo xoolee bi ñu gëjee coupe du monde 16 ans la donc bu ñu ñëwaatee tey aussi faaw ñu profité parce que coupe du monde fête la comme ni may waxee ñun dañuy fête peut-être jour ñooy nekk si pression a dara mais ñun moom dañu dem pour fête moo tax ñu koy préparé quoi di ko di ko xaar waaw. waaw waaw waaw loolu aussi satisfaction la boo xoolee tey am na ñaari doomu ndar si bokk que muy a Sarr que muy Khadim Ndiaye c'est la même chose donc euh, ñun fierté la ñu am après El ñu amaat beneen Saint-Louis bu dem coupe du moo tax euh, dana am ben pression bu ñu xaw démé ci si bi parce que déjà ñaar ñi ñi fi dem ñëpp côté bi nek dafa xaw doy war kenn ki gardien la kenn ki attaquant la kon résultat bi ñuy xaar si ñoom dafa bëre. motax tax bayu ñu leen aussi ñom kessé ñu ngi leen di essayer di leen booster dimbali leen aussi à ce que ñu baña décevoir quoi que bis bu ñëwé gaay yi géré ko. waaw c'est sans surprise hein. man je pense que sénégalais yëpp li leen doon xaar. parce que les mêmes têtes yi fi nekkoon boobu ba léegi di ko ñàkkante ñoom ñoo dem coupe du monde je pense que ñu waroon dem dem noonu ko instant bi lis si des mooy ñaanal leen rek yàlla sutural leen kenn bañ si blessé ñu réussir suñu mondial. coupe du monde bi ñu ngi koy préparé ñu ngi koy préparé normal parce que boo xoolee tey ñun dañ doon xalaat sax au moins mairie bu Saint-Louis ñu def benn genre fan zone wala dara pour que nit ñi mën fa daje pour dund coupe du monde bi

képp foo dëkk si Saint-Louis mën nga ñëw participer si jeu yi boo ñëwee di nga di nga jouer di nga bëggee te xam animation yëpp dana ñëw bu paree ñu seetaan suñu match bu ñu yàlla mayee ñu bokk jubilé euh, passer journée bi daal ensemble comme coupe du monde ni ma ko waxee woon sànq fête la on va essayer au maximum de de de faire la fête quoi de telle sorte que waa Ndar yi gis seen seen seen. waaw li ma leen di conseiller mooy ñu rester concentré c'est-à-dire xam aussi enjeu bi ni ko population bi ñëpp a ngi nekk seen ginnaaw boo xoolee. ñu ngi taf banderole fu ne ñu ngi taf ay affiche ay ay ay ay ñu ngi koy joxe pour mobiliser nit ñi à ce que bisu match bi ñu jàppale leen ñu leen laaj bëriwul pas de pression nañ jouer rek seen seen seen seen seen ay qualité quoi. waaw di leen sant aussi Saint-Louis TV déjà yéen seen tur bi rek dafa neex quoi parce que ñun ay Saint-Louisiens gis Saint-Louis TV moom certes c'est la première fois ñu ñu gis leen mais ñu leen di ñaan yàlla ñu dem bay toog di kat tiim suñu écran yi di sa seetaanee am match Sénégal lu ne parce que ñun Saint-Louis la ñu am mooy suñu fierté demuñu feneen fi leen juddoo fi leen yaroo fi leen màggee di leen remercier aussi si déplacement bi. <laughs> de Sénégal Ismaïla Sarr pour le deuxième but euh, jaajëf. salaamaaleykum man maay Mame Mariam ngi nuyu maa seen tur ak seen sant. waa jangat bi moy sante yalla d'abord ay sante yalla bu baax ci lolu biñ ko déggé mom wax dëgg yalla neex nañ trop ñun ñëpp ñoko ko am mbégte lool man ak wa quartier bi ak wa Ndar yëpp ñun ñoko ko am bànneex waa lima ma leen yabal moy ñu am ndam rek ñu xamni ne Sénégal yëpp ñu ngi seen gannaaw ñun ñëpp ñu ngi leen di ñaanal bu baax pour yalla dimbali leen ci ñu am ndam ñu sigil nu bu baaxa baax jappalé ko rek ak motivé ko lo rek lañ ci djublu pour rek ñom ñu xamni ñun ñu ngi seen gennaw wax deug yalla wa koñ bi ñepp jog du koñ bi kessé mais ndar yépp am ñoo xamni Pikine lañu joggé ñi njolofeen ñi fépp lañu joggé pour ñew rek soutenir ko man leen ñun ñong seen ginnaaw lo rek lañ ci djublu pour ñaax ka dal en quelque sorte dañ ko bëgg ñaax pour mu xamni ñun tay ñin ñepp suba buñ ñu di sétan télé bi bëgg na ne ñoom ñu am ndam loolu lañ ci djublu waa man nag pratiquement Ismaïla buy buy football Sénégal duma ko seetaan ba ma demee reen moom seetaan naa ay matcham mais buy football équipe nationale moom mënuma ko damay wut occupation bu may téye may liggéey wala en quelque sorte dara des fois butam yi sax si YouTube laa koy seetaane mais man mënu mënuma ko seetaan fii équipe nationale muy football. conseil bi ma leen di jox mooy ñu siggil ñu rek suba ñu ñëpp ñu ngi seen ginnaaw nañ ñu siggil daal xam ne Sénégal yëpp ñu ngi leen di xaar ñëpp ñu ngi seen ginnaaw

may leen ndam incha allah ah di kontaan rek di leen gën a ñaax rek di leen xamal ni ñëpp ñu ngi taxaw di leen seetaan di leen encourager tamit di leen ñaanal daal yàlla may leen ndam aussi fierté la si lu ñu nekk ay doomu ndar ba pare ñoom ñaar ñëpp ñu dem si convocation coupe du monde vraiment daal ñu ngi leen di ñaanal ah di ko ñaanal rek di ko wax nañ indi coupe bi. deux zéro ak saajo maale merci beaucoup asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu ñëpp nuyu Sénégal yëpp gannaaw ba nu sante yàlla jul ci Seydina Muhammad sant suñu ñaanu waajur ñoo ngi ñaanal maam Marème gudd fan ak wér di ñaanal pap yaay Ismaïla ak papam la ñaanal gudd fan ak wér di leen ñaanal lii yal na leen jik yal na seen doom ji Ismaïla nag duñ koy ñaanal waaye duñ ko gërëm dañ koy ñaanal di wax ni senegaal yëpp a ngi toog di leen xool ndar yëpp a ngi toog di leen xool kon liñ leen yaakaare yàlla bu yaakaar tas yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla dimbale yal yàlla kàttanal musal leen ci seytaan ak lépp leen di gàllankoor ba ñu lii ñu jubli muy coupe di monde bi ñu def ko dañ ko war a defee indi ndam te match bu ñu ci joué rek yàlla nañ ci am ndam ci kàttan yàlla ak ci yërmandeem yàlla jàppale leen dimbale leen ba bu ñu fi ñëw ñu ànd ak coupe bi Sénégal ñëpp ñëpp ñëpp kontaan ci kàttanu yàlla na leen yàlla dimbale ñoom ñëpp suñu doom yëpp dem jóge Sénégal dem ba foofu yal na yàlla dimbale te may leen ndam ba ñu indi fii coupe bi te mu jig leen jig seen ay waajur jig bépp Sénégal ci kàttanu yàlla ci yërmandeem ñoo ngi koy ñaan waaw Ismaël nag dañ koy wax ni que na ndax boo amee yaay ju baax xoolam rafet te lu ma am bokkoon ak jaamu yàlla yi kon boo góorgóorloo suñu borom mën na la dimbale ñu koy ñaanal rek yal na yàlla làq yal ko yàlla dimbale yal na ko yàlla musal daaxal ko seytaane ba lii muy def mu yeggal ak commencé bismillahi rahmaani rahiim àggal ci alhamdulilahi rabbi alamin ba ñibbisi si jàmm salaam ànd ak ndam li ci kàttanu yàlla ci yërmandeem